amuñu baay taaw bi waroon doon yaay di muumi yàlla jël na ko je crois que tey suñuy am dara loo xamante ni ñu ngi koy xalaat man ci ñooñu laa koy xalaat xalaatee ci ñooñu laa war a gën a peser wala accenté wu ci ñàkkum jaaga tey kan la war a gën a mën a affecté mais quant à dafay jëlaat beneen responsabilité deuxième responsabilité maanaam mooy lan maanaam tey day taxaw taxawaayu Papa Thione ci biir kër gi Wally tey day doon baay doon ndey kon donc je crois que ñii di xalaat Wally man bokkuma ci ñuy xalaat Wally parce que Wally yàlla li mu koy defal defal na ko pare yàlla préparer na ko ndaxte yàlla du la teg loo xamante ni attanoo ko lépp lu ko yàlla teg rek dafa xam ne que am na capacité bi am na pois bi tey Wally dafa war a doon ndey doon bàyyi ci képp koo xamante ni rakkam nga muy Aïcha di Bintu di Alioune di Babacar ba ci Mouhamed bi nga xamante ni tey moom la ñu jàppee imam ci biir kër gi Wally day taxaw taxawaayu Papa Thione Ballago mm-hmm. day taxaw taxawaay yi Papa Thione mais mais aussi tamit gis nañu waale bu ñu gis nañu yaay bu ñu génne àddina mais gis nañu organisation bi ci amoon waxtaan bi entre ñoom ak presse bi annonce ñu defoon amoon na tuuti contradiction pourquoi parce que Omaro dañu nit yi jarul ngeen di ñëw aéroport mais mën ngeen ñëw mën ngeen ñëw Almere Baye Sall génn ni bu kenn ñëw Almere bu kenn ñëw aéroport wala ku ñëw Almere tamit bu fa filmé loolu loo xam gisee. xam nga man balaa ñoom ñuy def communiqué je crois que bi jaaga génnee àdduna toog naa fi ñu bëri ñu ne ma mais yow pourquoi mën naa ne mën naa jàpp pour cent sénégalais yëpp partout à travers le monde man lañ doon envoyé message di ma pour vérifier information bi est-ce que dëgg la man aussi noonu laa ko jotee woon benn réponse là, yoo attends que je vérifie j'ai essayé de joindre Wali, jotuma ko c'était le coup de l'émotionnel subitement blâme ma koy joindre sax a Koné qui m'a envoyé un message pour me confirmer l'information ci saa si li ma njëkk a wax ma ne ko jaagadee li mu gënoon bañ ci àdduna ragal naa presse bi def ko parce que li mu bañ mooy ñuy filmer ay armeer wala di filmer ay dëj di bésu naqar ay caméra ñëw fa ñuy tàllal ay nit micro ki nga xamante ni mosoo wax lu baax ci moom ba muy dund ki nga xamante ni soo ko romboon doo ko nuyu nga taxaw foofu bëgg a yëkkati ay seede di ko teg ci kawam parce que lu tax ma wax loolu jàgga man ak moom dañuy waxtaan en privé loo xamante ni kenn du yëg parfois day jël téléphone am woo ma ñu waxtaan plus de trente parfois quarante minutes parfois man it ma jël sama téléphone woo ko bi ci mujj mooy bii soxna Momy Dany Guèye génnee àdduna il pare que dañ ko filmer woon ba ci bàmmeel beeg tout ça bi dëj bi passé mu woo ma mu naqarlu ko mu ne ma temps sa mbokk yi doo wax ak ñoom ma ne ko nag parfois da ngeen di jaawle presse ak compte YouTube dafa am ñoo xamante ne seen téléphone lañu yor seen compte YouTube ñoom vue la ñu soxla contenu la ñu soxla mu ne ma loolu yëpp ci seen biir la am na yoo xamante ne dafa ñaaw xanaa du ñu fàtteelu que ñoom bës a ngi ñëw ñoom it dañuy dugg foofu est-ce que bëggoon nañu kenn ci ñoom ku si sa waajur walla sa mbokk ñi lay denc ba pare ñii filmer di xawi sa sutura ma xam ne lu ko naqadi la mu wax ko ba xol bi jóg ma xam ne que kii bëggul li première réaction bi ma njëkk am maanaam mooy presse bi nañu dimbale jaaga ndagam bugg ko woon ci dundam ñu rusee ko ko maanaam ñu jaalee ko loolu benn caméra bañ fa tàkk vue bi ngay am ci dëju jaamur ban njëriñ la lay amal donc quelques jours après ma gis ñu génné communiqué bi ñu ñu aussi wax xamné que amul cérémonie troisième jour amul cérémonie li nga xamanteni ni 8ème ni jour que jaaga non la ko parce que amna yu bari yo xamanteni ne rek la que yu bari yo xamanteni ne rek lay ki soxla jël lan la def faatiyaam def fukki lixlaas ak benn jagleel ko way daw làqu jooju je crois que moo ëpp importance nga solu ba jekk ñëw toog ci bâche di wax li sa yoon nekkul di gën a tegaat nit ñi naqar di leen gën a tegaat charge je crois que ci loolu la dox donc su demee nag ba nga xamante ni ñoom ci seen bopp ñoo wax lii ñoo wax lale man ñi ngi may wax ñëpp ba tey gisuma ci kenn ku ci sant sekk man li ma jàpp mooy jaaga njabootam ñi mu jur wala yaayu jaaga wala papay jaaga wala tantay jaaga

ay di dem cimetière yi waaye nekk auto oto euh, Metso ñu koy filmer te ñoom dañoo bañoo lool loolu loo ko gisee. wa xam nga ku ci nekk da ngay assumer sa responsabilité. Mm. parce que loo bëgg bëgg def lu baax nga dem ba bés nit. a nekk ci naqar nekkul ci bànneex ngéntewul nekkul ci ciit nekkul di jubilé nekkul di gañe dara mu nekk ci naqar ñi xam ne nit a dëdd moom ci boppam bëgg ko woon ci dundam njabootam def communiqué wërale ko fépp dugal ko fépp yow nga jël sa responsabilité nga ne da ngay teggi charte yooyu mais yow la ak sa borom kooku bu mu fàttee keroog yow mal xiyaam moom foofu kii nga xamante ne mooy maman jaaga tëdd moom daf fay tëdd su boobaa nag dina ko laaj ak boromam loolu rek laa ciy wax. mais mais presque dañu weex donc bizarrement imaginer bu doon benn sans limite wala Dakar wala VIP people moo filmé loolu coow da leen di topp. presse bi weexuñu donc de presse bi dañ cee bokk dañuy doon complicité ci loolu parce que dafa am ay cas yoo xamante ne daf fi am avant. presse bi lañ ci doon gis muy presse en ligne gis ci ay compte YouTube gis ci ay influenceur, nous ñu ànd di ko defandoo ñi bokk ci presse bi war a diffuser information di invité ñooñu ci plateau di wax ak ñoom di contribuer ak nous. su demee ba nga xamante amener presse boo xamante ne sax newu fa woon li nga xamante youtubeur bi moom moo ko def mu leer na que lii lu ñaaw la yow nga xam ne ne ko su doon la wala sa baay doo ko bëgg presse yi di ko jëlaat di ko dugal ci seen site muy sans limite di VIP People di Dakar Buzz di Leeral di Dakar Actu ñun ñëpp koy def kon donc tey je crois que su ñu presse bi dafa weex dungu presse bi weexul dungu presse bi ñoom ñoo fàttee li leen yàlla cër leen ñu dem jaxasoog ñi nga xamante ni ay compte YouTube la ñu bokkuñu ci presse nit ku xëy suba. créer compte Gmail am ubbi compte YouTube bam yor téléphone am commencé di dem di dugal lu ko neex am ay abonné yu bëri jënd benn caméra ngeen ànd di bokk ak plateau parce souvent léegi da ngay gis ay interview yoo xamante ni interposé la nga gis cinq wala quatre micro mu leer na la gis naa fa micro sans limite sans limite c'est un site qu'on respecte boo xamante ni mi ngi liggéey tegu ci éthique tegu ci euh, tegu ci charte sans limite bëgg a bokk ak benn interview ak ki nga xamante ni amul fenn fu mu tegu amul base amul dara compte YouTube la moom respecté wul éthique respecté wul kii seetaan ci beneen chaîne bi su gisee micro sans limite mais ñoom ñëpp lay def ci benn saak. donc kon euh, du ma la site bu ndaw du ma la ñenn xam nga tey soo waxee ñi ne dangay ragal ku la mere moo tax ma ne Sénégal bés bu nit téye micro di wax wala démasqué benn affaire mu wax pour lu neex ki wala mu naqadi kële rek ça veut dire que mi ngi juddu. ci biir site internet nag dafa bari ay fumiste bari ay naafeq xëy na benn temps tànja mooy jëkk critiquer benn affaire. Ousin du ko ñemee wax parce que Ousin mi ngi ragal ni que kee sama copain la wala nangam sangam man nag s'il s'agit de wax dëgg ñu bokk ndey ak baay dama lay wax dëgg nga doon sama baay nekkoo ci dëgg ma wax la ko donc je crois que bi ñu war a jël suñu responsabilité dafa yàgg on parle souvent de solidarité suñu biir ci biir presse bi mais ku nekk xam ne ni solidarité amul suñu biir hypocrisie moo ci am tey dañuy bokkandoo defandoo benn gaaf kële ñëw taxaw fële benn nit su nekkee di wax pour intérêt tout le monde ñëpp rangé wu dem ànd kële parce nañu ku leen commentaire wala ku leen xas donc je crois que nit ki daal ci lépp loo nekk da nga ci war a am fulla ak fayda ni ko Youssou Ndour waxee soo demee ba téye micro nga xam ne que da investir ay millions di fay ay salaire di fay employé yor ay matériels yoo xamante ni sa morom yorul dara biir këram la nekk yor téléphone di def dara su la nar a yàqal sa métier mais yow yaa war plus de 300 sites yo xamante ñoo nekk fi il faut que Ousin dougal ci loxom Bamba Feeling Dakar dougal ci loxom Amadou Sy dougal ci loxom Pape Doudou dougal ci loxom Dam dougal ci loxom Serigne Diagne dougal ci loxom mais su dee benn Tange Tandian ngeen koy bayel après nit ñi di ko critiquer ku nekk naan noo gis luñ koy commentaire mais du dem fen ku nekk fay assumer responsabilité en tout cas petit ko amna parce que damay gis ay mbir bizarre parfois nga wara dem ci ben événement wala ben mariage célébrité

lu tax nga leen tu ngay jaaraat ci moo bi yaa ngi promouvoir seen seen métier mm-hmm. lan mooy influenceur pour yow mm-hmm. influenceur lu mu tekki la personne de Ousmane Sonko c'est un mm. parce que bu solo léegi benn koppati ci àddina bi yëpp dinañ ko sol wala Sénégal dinañ ko sol ñi am benn pour benn puissance bu muy dégager wala benn benn nu mu a waxee ci benn ay nit yoo xamante dañu koy topp topp boo mhm. ba lu mu def rek dañu koy def. léegi yow yaa ma cité ñaari exemple Youssou Ndour Ousmane Sonko mos nga gis Youssou Ndour yor téléphone am di filmer dëj mos nga gis Ousmane Sonko yor téléphone am di def live TikTok.

kon il n'est pas un influenceur bu leen leen tuddee influenceur parce que tey presse bi li nga doon wax yéen a créé ay tur jagleel ko ay nit yoo xamante ni tekkiwu ñu ñaari salaamaaleykum su ma toogee Sénégal may dégg ñi naan les tiktokers Demna naa ba gis ñi naan les youtubeurs c'est quoi un youtubeur tok sa biir kër taal sa téléphone jël benn vidéo dagg wala wax ci kii wala saaga kii nangam sangam ñi bëgg a jox benn profession parce que ñi ngi jëm ci benn ère digitalisation. C'est quoi c' est YouTube ñu toll ci benn Sénégal boo xamante ni on vit dans la pauvreté et cette pauvreté nous pousse quand même à découvrir tout ce qui est néfaste. sénégalais tey moo fi dàq naan bàyyi leen xayi sutura te sénégalais lu ñuy xawi sutura la gën a bëgg a seetaan lu ñuy muur sutura léegi lan lañu bëgg quand tu me parles d'influenceur, je ne vois pas d'influenceur au Sénégal ci ne ngi may tuddal ñëpp xam influenceur Kumba influenceuse tey soo demee Paris ci métro tu vois ces posters qui affiche affichés publicité avec HT26 un Sadio tu me le dis je pense que influenceur aujourd'hui sur Kholé Kambi, on voit l'image de Ganagay qui a ay publicité influenceur Si tu soo ma kay ki euh, c'est un influenceur Si tu ma ku mel euh, président du maire, c'est un influenceur parce que ce sont des modèles de réussite économique dans un pays mais ñi ngi may tuddal ñëpp yor seen téléphone man maay snapperu diw man maay snapperu diw mais loolu mooy échec total yow demotoo ba jafoo dara sa moromu góor ne lëng am créer entreprise am di liggéey di développer communication yow nga yor sa téléphone moom lu mu yoree téléphone nga ne yaay topp ci ginnaawam pour filmer lu ko kon xanaa ñëpp ay influenceur lañu yow kan moo la mën a influencer ci dara ci ñi ñu fi tuddee influenceur y a pas d'influenceur ça ay nit yu tekkiwul dara lañu amuñu benn valeur man VIP people yow sans limite yow Dakar Buzz yow Leral, yow Dakar Actu ngeen jox leen benn importance pour am un contenu ñun ñoo dem ba focaliser wu ci médiocrité médiocrité boobu jox leen on voit des filles yoo xamante ni kenn xam A kenn musulman, xam B xees nañu wala weex nañu ci TikTok bi di def ay live TikTok di wax ay dof no sense ñu ne kooku influenceur la non dafa am koo xamante ni ba wàcc bëgg toog wu toog di la déglu nga dem ci benn live TikTok koo xamante ni nee na am naa vues ñooñu ils sont dans le monde virtuel le monde virtuel ça n'existe pas c'est pas la réalité du dëgg ay fen la parce que amul limite amul loi amul dara tey monde bi ñu nekk Ouzin munoo xëy ci suba maanaam 8 heures du matin ba minuit ngay wax ak mille personnes munoo ko

suñu démé ba ci ñi nga xamante ay journaliste lañu woon doon liggéey ci ay médias yu sérieux ma tourner di leen gis ci ay TikTok ñu naan dañuy créer page TikTok pour joxe de l'information je crois que le Sénégal est en retard. parce que ñoom dañu wàcc seen ànd dem fekk ànd bi nga xamanteni dara nekku fa ñu bëgg concurrence ak ñoom. képp ku la fi naan influenceur la il n'est rien du tout tekkiwu fi dara kan mooy influenceur kan moo ko xam. man influenceur mooy ko nga xamanteni ne tey daf may wax ma def dara ma def dara Sadio Mané tey soo gisee ay kireen di ko jël. parce que xam nañu Sadio Mané am na lu mu liggéey il est positif tey su dee mi ngi jël publicité li nit dina insister képp koo xamante yaa ngi bëgg a Sadio nga tey pour que nga jëndi loolu tey ñi ngay naan influenceur tey ñi topp ci ginnaaw Wally Seck mais ñoom du ñu influenceur parce que ñi leen di seetaan ay fansu Wally Seck lañu moo tax ñuy dem ci seen compte Wally mooy influenceur bi mais ñoom du ñu ay influenceur parce que Wally mooy pare nga sol ko kon ils ne sont pas des influenceurs ne les appelez pas ça li gëna ridicule ci aduna lan moy sa profession nga ne tiktoker la ben application bo xamante dañ ko créé suba suba ñu mën ko dindi il faut qu'on ait raison garder. voilà bu fekkee euh, si Wally bi nga bëgg a tudd xam naa ñu ñu desee bari na ci waxtan mais Wally Seck dañu ko gis euh ñu dañ nekkoon nañ ci biir euh, biir Almere mais dañu gis ñi ñuy euh, denc yaay ji mu and ak àll bu bu doy waar tudd yàlla sikar bi hein mu mel ne moom ndax ba dem bay defal ñu ko waroon ci diggante boobu noo gisee ndëgërlaay boobu ñu am ak mais su tuddul yàlla doomu aadama lay tudd <laughs> yàlla rek la fa mën a tudd. ñoo xam ne yow yaa gis aal mais moom gisoo aal nee naa leen Waly Gaynde la il est fort mentalement. Mhm. Waly dafa am beneen charge bu tegu ci kawam. Waly dafa yor responsabilité coon Ballago Seck yor responsabilité Kiné juuf yor ba pare yor responsabilité Waly Ballago Seck en tant que leneen de la famille. donte laminar moy sen tawu keur mais bay lañu ñu bokk mais tay daf leen jaboté ñom ñep ba paré am responsabilité li nga xamante ne ci lu muy liggéey di métier di profession mais wali tay so amul force bobu donc na bay lu muy def il est courageux yalla rek la wara a tund. donc ban ban taxaway la au delà de famille staff ci avenir wali si gën ko protéger parce que c'est vrai que nit yi dañuy dund di nekk ay jirim comme tout le monde mm. mais si mom situation bu mu nekk ni ban taxaway nga japp ni rendement ni la war à l'égard de Wally xam nga Ramdan hormis profession bi am na ñoo xamante ne ay cousins am am na ñoo xamante ne ay frères am lañu nañ doon dundee en famille noonu la ñuy dundee en famille ça continue je te dis que Wally li mu war a def xam na ko Wally ñi ko war a entouré xam na ko Wally ñi mu war a waxal dëgg xam na leen Wally ñi muy waxal dëgg ñu jógee ko lool c'est pas les gens yi ngay gis ñuy toog ak moom ci ay euh, caméra ak wala fu mu dem ci otoom ci vidéo boo gis nga gis leen Wally a des gens yoo xamante ni ils sont très sérieux et très professionnels di wax ak mom di def ak ñom diko diggal muy def alors que kenn mosu leen gis ci vidéo c'est ça que les Sénégalais ne comprennent pas. mais euh, mais concurrence mom day continuer. concurrence lan. concurrence musique bi coow li détail day continuer. ouais mais musique su amul concurrence baaxul yow lu tax tey Sans Limites di développer wu tay tey su tegee plateau bi suba mu teg plateau bële parce que la concurrence lu VIP people tay su cette année Sans limite mu teg lii suba mu teg la c'est la concurrence mais loolu c'est une concurrence positive da lay yok jom yok la dolé ki xalaat na li kon donc man meuna naa li gën positif musique bu amul concurrence su yeboo nañu baye musique xam da fay dé la concurrence ça continue toujours